Euh, sous préfecture bi euh, nit ñi commencé nañu ñëw euh, rang pour jënd seen ticket daal di commencé jël BRT bi kon ñi doon laaj kañ lay tambali fonctionner là on peut dire que ñu ngi ci fonctionnement bi commencé na et que comme je l'ai dit progressivement bus yi day commencé di sur les 144 bus au moins euh, dina am près d'une centaine de personnes qui dina commencé daw donc mu donc ministre bi euh, day jël bus bi le maire